loo xam dafa jëm ci wàllu député yi li ëpp ci sénégalais yi ñoo ngi ñaawlu seeni comportement ndax ñaari mbir bu jiitu bi balaa ñu leen sax jël ñoom investir leen askanu fa ñu dëkk ñu si ëpp si ñoom seeni gox ànduñu si woon pour ñu investir leen ñenn ñi ba leen investir ba léegi dematuñu ñi si ëpp demuñu seen base défendre programme ki nga xam ni moom moo leen def ci listam muy président de la république ci programme liggéey ëllëg bi nga xam ni tey moom la porté moom la waxoon ak sénégalais yi loolu mu nekk benn bu ñuy ñaawlu may leeralal sama xaritu député maanaam jamonoy guerrier gelowaar ñaanco ci bi ñu ut nguur gi dañu dépassé loolu lay tey ci période bi ñu nekk ci jamono ju ñu nekk maanaam réew mi fan la ko njiiti réew mi jëlee fan la ko indi tey ak fan la ko war a yóbbu ci foofu lañ ñuy sénégalais di xaar ñu gis ni ñu ëpp ci ñom ñoom ñu défendre bobu programme ñu tamit dem ci li ñi am as ñu dem seeni base waxtaan ak seeni base wax leen ni askanu Sénégal fii la nguur gi jëlee réew mi yóbbu réew mi. donc li ëpp luñ ñu ciy gis si seeni i coow seen intérêt bopp kese lañ nekk sénégalais ci fi ñu nekk ci li ñu war a seeni mbir maanaam jafe-jafe yu ñu nekk yi leen ni génnee. ak jafe-jafe yi nga xam ne ca lañ nekk nan la ñuy fexe ëllëg ba ñu génne leen si bari na ay député yoo xam ni ba leen investir xamuñu leen woon bari na ay député yi nga xam ne diggante bu leen investiré ba tey demuñu seen i base bari na ay député yi nga xam ni boo demee sax seen i département soo waxee ni diw sax député département bi la loolu dafay poser problème ba sax seen i communes yu ñu nekk yooyu nag tax na comme ñi si ëpp ba leen investir ba ñu jàlle ba léegi dematuñu seen base xamuñu seen askan seen i gox yan jafe-jafe la ñu nekk ñoom it xamuñu programme bi nga xam ni muy programme liggéeyu Sénégal nga xam ni président de la République mu ngi ci nekk di déroulé di président coalition ñoom bañ bokk muy majorité présidentielle mu nekk ci toppuñu ci loolu nekkuñu ci donc ba tax na tey liñ leen war a wax ci yi ñu war a jublu mooy askan bi ci boo déggee askan bi ci ni ñuy waxee commencé nañu di lâché député yi commencé nañu di leen mere ndax séni comportement loi yi nga xamné voté nañ ko ñu war ko top ndax xol ndax lool amna wala amul ministère bu nek ndax lañu wax ni dañ koy def ci gox bi ak sa gox dem nga xol ndax lool ñu wax ni def nañ ko wala defuñu ko yoy yi lañ wara ñaxtu suivi bi xolit ndax askan wi ca yeen jaf yeen jafe-jafe lañu nek nga dox ci digënté yow yak ki nga xamni ñoy ñooy ministre yi yenn yi bu ñu ci walu voter loi yi nga fexe ba jege ministère bi bu boba yoy mu fekk sensibiliser moo xam nga xamni ëlëk Tu suivi bi di nga xamni li kat xewon na joge bu da ngay loi waccio ci base ba yaakar ni bo demé ci askan wi da lay la dara te fekk ni askan wi ci député nekk suñ loi par def sen xamni da tan ci bir askan wi ñi ci ëpp ñong dem ci askan wi ñani ñong dem askan wi ëpp askan depuis ba ba c'est à déplorer dans la mesure où comportement euh, ci nimuy muy relation yi bax dañ am ak moom yi ñu gis-gis ci nimuy waxé ak nimuy jëfé ci bir assemblée dama jàpp ni assemblée ñuko sék majorité bi dañu war waxtaan seen bir ndax bu boba yene jafé jafé ak yene comportement yi duñ ko génné nañ waxtaan seen bir ndax ci nima déggé nimu waxé euh amna jafé jafé ñoom ñu bokk majorité bi nañ toog waxtaan parce que dégg naa mu ni toog nañ juróom-benn weer yu mu gisantul ak président assemblée loolu baaxul loolu si wàllu gestion ressources humaines ci biir assemblée loolu loolu problème la. ñoom ñoo dégg nañ ci ñoo xam ne bëgg nañ nekk cadre euh, candidat pour dakaar muy le cadre Diouf Sarr ak le cadre Amadou Ba te balaa ñu àgg foofu euh, dafa am. li nga xamné dafa xew ñun ci biir majorité présidentielle ci biir Benno Bokk yaakar dégguma dégguma am fu amul fenn fu ko waxtané ni di moy candidat pour la ville de Dakar waxtaan ñu ko fenn kon Benno Benno amagul benn candidat pour dakar amul ndax pour nga nek candidat dakar da ngay gagné sa localité ba nopi nga doga dem fi nga xamni moy dakar ñun nak Parcelles Assainies bi ñu nekk te dëkk fa candidat lañu pour Parcelles Assainies mais ci biir li ñu nekk candidat pour Parcelles Assainies ki nga xam ne mooy amado Ba du suñu candidat pour Ndakaaru ndax li tax ñu wax loolu ñun ba ñu àndee di xeex ak Macky Sall certes man gisuma ko woon relation yi baax la ñu am waaye dafa am candidat boppam muy ka fa nekk tey meer muy Moussa Sy moom mooy candidat wu ki nga xam ne mooy Amadou Ba ndax ci schéma bi ñuy liggéey maanaam kii nañ jàppaloo Boku lis, souni boku lis, nga bayi me fi, ma deme Dakar. Ti bi lolo, ki nye kane moumoye Diouf Sa, moum dafa am kan vopom, moum kane moum yi bi pasel aseni. Kom moum dafa am kan vopom pou pasel aseni, andoun akou nyoun ti dis dis bou ny bagi. Te bou sa nyon koku at nyon nyoy nek kandidam pou pasel aseni. Amadou Ba ne fait pas l'unanimité au passé Sassini..! ba mu xam que.. Moussa Sy ne fait pas l'unanimité Les ëpp ci Parcelles ne sont plus d'accord que Moussa dirigeait Le liste li parcellois ci Parcelles waaye yi nga xam ne ñoom la président doon Andal, ñu daj lu ne ndax 2006, dañu am base politique Et ci ni Amadou di doxalee si suñu réglé Le liste bu munti doon bu Benno porté au passé, nous dañuy perdre les élections ndax 2014 avons une chance ñu duma ñu ni lañ ñu duma manam ñañu xeeb muy le camp de le camp de Khalifa Sall ñañu xébol ak parcelles yi ñu xébol ñoo dem utilise té même cas de figure muna na am pour parcelle ci une commune. yu nekk ci biir ba Benno